metti parce que déjà loolu dafa ñuy indil euh, sunu dellu ginnaaw xadi ci li nga xamante ne moom mooy ci liberté yi parce que war nga mën a am sañ-sañ xëy suba teel loo xam ne kenn mayu la ko wifi ak connexion bi nga xam ne mooy donn bi da koy jënd nga nga mën ko jënd mën ci connecté wu li mu yàq ci koom déjà kenn xamul nu mu toll ci li nga xam ne aujourd'hui li ñu naan euh, adduna bi moom moo yegg foofu moom moo dox ba nga xam ne nit ñi lu ci bari ci données mobiles yi dañuy liggéey ci internet bi ki nga xam ne mi ngi liggéey à distance koo xamante ne mi ngi am émission koo xam ne waroon na mën a def conférence koo xamante ne aujourd'hui daf ci jënd ak di ci jaay perte boobu nga xam ne mu ngi ko koy jural e man je pense que dañu ko bëgg a def habitude aussi mm-hmm. parce que mënuñu lu jog rek ñun jóg rek ñu daal di xëy suba teel génnee communiqué ne dañuy dagg li nga xam ne moom mooy les données mobiles euh, joxe explication yoo xamante ne tey état war na mën a am des moyens et des méthodes yoo xamante ne yooyu war na mën a fexe euh, ba du yegg ci situation boobu tey it du lor ñeneen ñi. Mm-hmm. mais yàqamti dagg données mobiles yi comme ça et tout le temps ñu di ko def loolu je pense que pour un pays comme le Sénégal en dellu ginnaaw. ci wàllu liberté yi weesuwut loolu liberté nit ki mu war a am connexion war a liggéey mais li mu yàq kenn xamul nu mu toll déjà yow nit ñi rek dangay ngay sentir que ne dafay am lu bari loo xam ne manqué na ci ñoom mhm. ci seen liggéey manqué ci ñoom sax ci seen épanouissement parce que xëy na ñenn ñi dañ ko utiliser comme ni ko Ndeye Fatou waxee pour woote à des à la violence ay mhm. propos yu haineux mais am na ñu ci ëpp ñoo xamante ne dañ ciy liggéey mhm. ñi dañ ciy def ay distraction ñi xëy na mën nañ ci sax dëfal nit ñi mais saa ñu nee yow manifestation ñu ngi koy wàcc nga xëy suba teel génne communiqué et puis da koy génnee dagg ko comme ça alors que état war na mën a am des moyens yooyu nga xamante ne dañuy def ay propos yu haineux ñu fexe ba au moins du du bari wala boo am nañu loo xam ne mën nañu ko utiliser en ci internet bi loo xam ne du yegg foofu sans pour autant tout le temps depuis presque plus de six mois bu ñu nee tey kii bëtam kii na wala ñu ne suba yaa a une marche boo xam ne silencieuse mhm. nga xëy suba tey parce que da ngay daw ay da ngay daw loolu nga nga dem dagg internet comme ça mhm. je pense que jot na quand même ñu ñu

ñaawlu nee nañu euh, li ñu nemmeeku mooy ni amul benn initiative boo xamante ne jël nañu ko ngir waxtaan wala ut ay euh, pexe euh, wala sax ñu négocier ci ñoom seen plateforme revendicative mooy seen ay sàkkuteef ñu onu ci ak maître Boun Aya Malick Diop travailleurs de la justice continuent la lutte pour la satisfaction totale et sans délai des doléances consignées dans le préavis de grève que le Sudjust avait déposé le 19 octobre 2023 sur la table du ministre de la fonction publique. Ce dernier, depuis lors, n'a pris aucune de dialogue ou de négociation avec le syndicat des travailleurs de la justice. Il en est résulté un profond dysfonctionnement du service public de la justice qui perdure depuis plus de deux mois. ñu wëttali diwaanu euh, Tambacounda ay mbokk ci ñoo xamante ne dañu leen a teg loxo euh, ñu àndoon ci euh, caravane liberté d'Ousmane Sonko ñoom lu ñu bëgg mooy ñu jéggal seen mbokk yooyu le ñu tollu gën kaa néew ci ñeent fukk ak juróom juróom-ñeent ay ndaw la bañ leen tegee loxo ak léegi mat na juróom-ñetti weer ñu nga fële ca maison d'arrêt et de correction bu Tambacounda ci lu bari yoon ñaan nañ ba bàyyëpp ndégandiku waaye dañu leen ko bañal ñu ond ci ak kon kon euh, Mamadou Samoura mooy suñu correspondant foofee. xale yi dañoo juddu fekk seeni baay nekk ci loxo yoon léegi mu mat juróom-ñetti weer. diggante Koupentoum Tamba cent kilomètres bi ñuy jàpp suñuy jëkkër ñu ngi nekk euh, ñett ci ñun ngi nekk en état état bu avancé sax état de grossesse bu avancé. mais taxut mënuñoo jàpp sa jëkkër nga toog di nelaw mënuñoo jàpp sa jëkkër ngay occupé yeneen amoo leneen lu dul euh, jàppale ko di ba ñu àkku seen ginnaaw tey tey ñun ñett ñëpp ku nekk mu ngi yoon liir bu am ay 6 mois 7 mois te seen ginnaaw lañ ko am liiri soxna jege ñaale détenu yi tamit kaddu gi lenn la. di ñaan ñu libéral ñu suñuy détenu muy détenu Koupentoum di détenu Tamba ak fu mu mën a nekk. ka ku mel ni Moussa mbay vraiment sa santé na lui je ne pense pas que sa santé lui ait permis de rester en prison. di ñaan président de la république di ñaan ministre de la justice di ñaan aussi le procureur de la république ñu may ñi nga xam ne ni c'est des pères de famille ñi nga xam ne ni aussi. c'est des chefs d'entreprise ñi nga xam ne aussi c'est des fonctionnaires de l'État ñu ñibbi seeni kër. fàttali ni si caravane bu Ousmane Sonko sumb woon te mu jëwul yegg si fii ci Tambacounda ñu tegoon loxo toll si ñeenti fukk doomu aadama te loolu mi ngi am ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weeru mai atum 2023 donc euh, huit mois euh, Fatou Abdou seen ay mbokk kon jéggal la ñuy ñaan. waaw je pense que déjà lii sax danga nga ciy xaw a am benn benn yërmande boo xamante ne parce que ay tout tànk la ñu wane yoo xamante ne gisuñu seen papa bi ñu juddoo li ko waxal moo doon nee nañ caravane de la paix bi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi ko doon amal ci la ñu leen tegee loxo et je pense que image yi war na sax yegg fi nga xamante ne foofu la war a yegg pour que euh, suñu mënee am bàyyi négandiku ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen i kër xadi mm-hmm. mooy bu fekkee ne nit ki euh, présenté wul benn menace et que nit ki il présente toutes les garanties yoo xamante ne soo ko woowee moom dina ñëw et que wuyu si la li war ci moom nga def ko je pense que dajale lim bu bari bi ci kaso bi amu ci njariñ mhm. su fekkee mën nga ko bàyyi mu mën a dem ci këram saa boo ko soxlawaatee mu mën a ñëw mais également acte bi taxoon ñu jàpp la nga fexe yow également ba doo ci dellu si mhm. parce que une manifestation dañ ko war a autoriser moom mooy tax nga génn et aussi manifester wa fa wute ak li nga xam ne mooy détruire les biens d'autrui mhm. et ci manifestation yi mënoo cee bañ ne quand da ci am destruction de biens loo xamante ne boo paree soxla parfois ay actes yoo xamante amul dara lu ko mën a justifier ci loo xamante ne ci réew mi nga bokk dëkk ci réew mi boole ceeg di ko def je pense que loolu ça n'a rien à voir ak manifester pacifiquement mhm. pour ñii nag ci seen cas nga xamante ne dañoo dem ci caravane ñu teg leen loxo suñ leen mënee bàyyi ñu am une liberté provisoire dem fekk ci seen ay njaboot ñu bàyyi leen et je pense que loolu bu ñuy wootee dialogue sax wala ñuy waxtaan sax gis nga yi def ci bokk mooy yi nga xamante ne ce sont des détenus ñu nekk yoo xamante ne parce que parmi ñi nga xam ne ñu ngi koy lim ñu ci bari am na ci ñu bari ñoo xamante ne xadi defuñu benn acte de vandalisme. am na ci ñoo xamante ne manifestation yi c'est-à-dire ils au mauvais moment ci benn période wala dañu nekk peut di marché mu fekk leen fa bokkul ak ñoo xamante seen dossier lourd na ba war nañu koo lëmbat ñi nga xam te ils présentent toutes les garanties ñu bàyyi la ñibbi ci seen i kër je pense que loolu ci liy dégel ci dégel la bokk ci li nga xam ne mooy situation bi yàlla dañ koy ñeewantal ndax ay gone yoo xam ne dana juddu ci seen ginnaaw waajur bu góor loolu rek tumuranke la mhm. euh, booleeg ay soxna yoo xam ne dañuy def benn distance cent kilomètres quand même Koupentoun Tamba loolu du distance bu gàtt te loolu it euh, doon na jafe-jafe ci soxna yi te it loolu dafay indiwaat sur la table léegi les longues détentions parce que tamit justice bi tamit dañuy vraiment yéexal mbir yi ndaxte ñii bu fekkee ne ci affaire caravane lañ leen jàppee manifestation huit mois quand même en détention provisoire c'en est de trop quand même mm-hmm. parce que détention provisoire liñ ci wax mooy six mois après six mois dañ lay juger wala ñu bàyyi la nga ñibbi sa kër loolu la règlement wax loolu la loi nangu mais après six mois nga téye ci nit juger woo ko waxoo ko ci yan peine nga koy toppee ëllëg nag lu ñuy def xëy rek liberté provisoire léegi après yow huit mois yoo xam ne moom dafa mel da nga ko jëloon def ko en vacances quoi tu perdu ces huit mois boo génnee mën naam yaa ngi woon ci bërëbu liggéeykaay dootoo fa mën a delluwaat wala sa bërëbu liggéeykaay amaana dina nga fa perdre ay mois parce que am na bërëb yoo xam ne soo ko liggéeyu duñ la ko fay mm-hmm. yaa ngi teg sa njaboot jafe-jafe yëpp la justice c'est fait au nom du peuple et pour le peuple donc wàllu social daf ci war laaxaale mooy fexe ba di xool le sort des détenus mais on a beaucoup de détenus dans nos prisons en détention provisoire te chaque année rencontre yu am ci magistrature ñu def ko comme thème développé ko épilogué ci def ci synthèse rapport dugal ci tiroir yi te duñ ko euh, duñ ko œuvrer duñ ko réaliser loolu mooy dëgg bi nañu bàyyi jël nit ñi leen di tëj te duñ leen àtte loolu c'est universelle des droits de l'homme dañ ko dicté mhm. te ñun dañoo def ratifier beaucoup de conventions à l'international Sénégal ñu ne pays de droit la ñun nee nañ dañuy respecter les libertés mais nañu jël tamit nit ñi nga xam ne dañ leen di jàpp parce que ñii présomption d'innocence lañ am mhm. dès lors où jugé guñ leen ba situer seen culpabilité rek ils sont innocents léegi huit mois pour des innocents mhm. jusqu'à la preuve du contraire mais il faut qu'on arrête ça nañu juger lëmb mooy indi soulèvement mooy indi li nga xam ne mooy frustration au sein de la population. Mhm. mu ngoog euh, Ndeye Fatou ñu wax nag euh, ci leneen ëllëg kon la communauté chrétienne bi di tàmbali seen koor euh, ñeent fukki fan yoo xamante ne dañu ko nar a woor waaye itam di julli dinañ ko commencer ak cendre bi nga xamante ne moom la ñuy def ci fidèles yi muy firndeel ni ñu ngi jéggalu waaye itam ñu ngi delluwaat ci suñu borom.